moo ñu fi indi li ñu fi indi nag lu am solo la mooy dëkk bi bu ngeen fàttali ko at ci ginnaaw sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru war na dëkk bi xool ne gis na ne lëndam na këriis mu mettit ko Touba ca kanam def ci benn documentaire wane ne dëkk bi lëndëm na këriis daaw ci màggal gi en principe ñu waroon koo defar waaye yàlla dogalu ko ren jiit ci màggal gi waa comité d'organisation màggal gi ànd ak le préfet le sous-préfet ànd ak euh, la yi et la Sénélec ñu ne Touba ci kanam dañu bëggoon ñu ñëw en appoint ci màggal gi te defar lamp yi ni ngeen ko xamee xam ngeen ne Touba ci kanam dégagé woon na un budget de cent cinquante millions de francs CFA cent cinquante millions yi nag bi mu ko dégagé lii rek ko waraloon benn bi mooy da doon jëm ci ndox mi nga xam ne ndox mi ñuy naan la benn bi ci des doon jëm ci ndox mi nga xam ne eau pluviale la muy ndoxum wal mi bi ci des jëm ci làmp yi làmp yi it bi ñu de bi ñu demee ba xam ne war nañ koo defar li ñu def moo moo lool mooy dañu taseeg Senelec ginnaaw bu ñu taseeg ñu ma leen waxoon laaj leen yan spécification la ñuy soxla ngir mën a defar lamp yi lamp yi biñ ciy demee Senelec xamal nañu ne ñoom day mu am contacteur am horloge nekk ay sodium 250 ñu xamal leen ne leen àdduna weesu na foofu loolu tax ñun ñu wut ay làmp yoo xam ne dafay nekk làmp bu am ab bët bët bi ci boppam lan lay def day nekk ci jaww ji bu jaww ji lëndëmee mu tàkk bu jaww ji leeree mu fay lampe boobu kon dootoo soxla contacteur dootoo soxla horloge lampe bu nekk làmp LED nekk 100 aussi fu 250 watt bi di lekke xaalis làmp 100 bi du fi lekkee lu lu bari kon dinañ yaxanal gafaka état mais dinañ yaxanal gafaka euh, bi nga xam ne mooy bu commune waaye dinañ yaxatal gafaka ak waa impo ndax ñun ñii ñëpp ñooy fay impôt di ko fay Euh, Touba ci kanam euh, dafa jug pour leeral dëkk bi euh, comme ni ko ñëpp xamee Touba ci kanam li ko tax a jug mooy dëkk bi pàcc bi ñu toll nag mooy lu jëm ci éclairage public éclairage public nag yaakaar naa bu ñu ko waxee importance bi liñ ciy njëkk a xam mooy ak leer dafa baax ci dëkk te dëkk bii di Touba loolu la mérité ñaareel bi dinañ gis ne dina xeex insécurité jamono yi ñu toll ñëpp gis nañ dëkk bi ni mu am ni mu amee insécurité moo tax bi ñu commencé liggéey bi li ñu njëkk a def rek mooy euh, dañ ne ban cible la ñu am euh, ñu ne nañ jubali marché Ocass yaakaar naa marché Ocass fa la ñëpp di daje euh, moo tax bi ñu commencé liggéey bi dañoo commencé ci jomaa ji jëm ci marché Ocass jeexalaguñ marché bi waaye liggéey bi dafa am dafa am programme boo xamante ni ci lañ ko teg Euh, pour le moment nii ñuy waxee ak yow guy mbind lañ nekk euh, jóge nañ gaar bu ndaw di jaar fii ci guy mbind euh, nekk si mbedd bi nga xamante ni moo nekk ci wetu kër Serigne Sidi Mbacke nekk premier adjoint au maire war a dugg leeral guy mbind gi yëpp importance su lii ñuy def nag Touba ci kanam xam na ko ndax xam ngi mooy ci année 2019 bi li ñu def mooy 1960 lampadaire lañ commandé yaakaar naa 1960 lampadaire mën nañ wax bari na bariwul parce que dëkk bi gis nañ ni mu toll bi ñuy recensé ba dugg ci quartier yi surtout les quartiers périphériques gis nañ ne 1960 lampadaires yi sax bu ñu ko defee ci dëkk bi dina am rupture bu baree baree bari moo tax Touba ci kanam ci programme bi mu jël euh, li ñu programmé mooy 1960 lampes yi pour année 2019 bi la année 2020 bi am nañ si programme mu jëndaat yeneen lampadaire parce ñu buñ objectif biñ bëgg pour ñu atteindre ko mooy dëkk bi yëpp day leer Touba leer nañ waaw làmp yi euh, xëy na njëg sax mënuñ ci prononcé gun ndax euh, coût bi coût global bi mënaguñ koo joxe ndax ñu ngi si liggéey bi pour le moment te montage beeg frais yi ci topp ba léegi mi ngi ñëw mais làmp bi euh, Touba ci kanam ni muy doxee ci lépp lu muy def rek day xool la gën a méngoog jamono leeraloon nañ ko ministre de la santé xamaloon ko ne ko poste de santé yi Touba ci kanam defar boo doon wër duñu wax Touba waaye boo doon wër senegal yu ni mel amu fi ba moom yëg-yëg ba mu ci am mooy du ko yemale ci poste de santé da koy yóbbu ci centre centre de santé la koy def làmp yi aussi bi biñ ci accès xalaat boobu lañ am euh, biñ ñëwee di ko commandé dañ ne dañuy commandé làmp yu ànd ak jamono ndax gis nañ dëkk bi ni mu amee jafe-jafe ngay dox bëccëg di gis lamp yi di tàkk Touba ci kanam sóoraale na loolu pour yaxanal courant bi commandé làmp yoo xamante ni bu lëndamee mooy boppam bu leeree mu fay boppam euh, loolu xam nañ ne dina économiser courant bu bari beneen bi mooy liñ doon gis li ñu doon faral di gis ay lampe sodium lañ doon gis yoo xamante ni deux cent cinquante watt lay doon wala deux cent watt wala cent soixante watt euh, Touba ci kanam xam loolu aussi bi muy commandé mu ne ledd lay commandé làmp ledd lay commandé lampe LED yoo xamante ni 100 watt lay jël nga xam ne li muy li muy jël ci courant bi du bari ba pare day am leeraayu lampe 250 watt bi euh, Touba Ca Kanam noonu lay fonctionner ci lépp lu ñuy dox dañuy xool la ci gën a méngoog jamono li nga xamante ni mooy am ci réew yu mag yi loolu lañ jàpp ne moo war a ñëw ci Touba. Euh, ku làmp yi kese mën nañ ne àgg nañ ci juróom fukki million wala lu ko ëpp waaye li ci li ci li ci toppaat dafa bari montage bi ñëwagul yeneen yi ciy topp contacteurs yi. connecteur yi câble yi yooyu yëpp mi ngi ci biir ak oto nacelle oto nacelle bi nga xamante ni moom la ñu monté monté lampe yi Touba ci kanam am na yéene jëndal boppam oto nacelle boo xamante euh, bu ñu demee ba monte lampe yi ba pare làmp yi nekkul ne dañ koy monté rek bàyyi ko noonu dafa laaj entretien suñ demee ba war koo entretien Touba ci kanam di mën di interveniral boppam di mën a entretien làmp yi pour làmp yi buñ tàkkee même buñ ci gisee dara ndax ko connecteur bi kii euh, lii bi ñu ko wutal seen sóor bi ñu ko wutal muy automatique bi benn entretien rek lay laaj moom mooy bu taqee nañ ko nettoyé loolu rek lay laaj te pour nga nettoyé ko pour nga yéeg si lampe bi loolu il faut nga soxla na seen source de financement wu Touba ci kanam mooy yow mooy yow mooy man mooy sëñ bi mooy sa caméraman bi ñun taalibe yi ñooy Touba ci kanam 1000 francs yi ñuy génne moo fi monter làmp yi moo fi defar poste de santé yi moo fi indi oto mbalit yi moo fi indi oto sapeur pompier yi nañ ko bañ a xeeb lu am solo la loo xamante ni euh, yëg-yëg bi ci sëñ abi am ba wax ne bu ñu amee 2 millions de mourides année bu jot danañ am 24 milliards yaakaar naa bu ñu amoon année bu jot 24 milliards juróomi at dinañ toog tuuti Touba Touba danañ gis ne soppeeku na bu wér a wér ndax euh, gars yi dañ koy faral di wax dégg naa kilifa gu mag mu nekk ci télévision bi ba joxe exemple naan war nañoo auditer yeneen organisation yi fi jaar. bu dee Touba ci kanam liñ fi def lim bari bari matagul milliard kon xam nañ ne milliard lim man bari na rawatina na comme li ko suñ sang bi waxee 24 milliards par an ñu ngi koy séentu xay na àgguñ ca euh, gëm nañ ne buñ ci àggee li sëñ Touba ñaanoon ci dëkk bi yëpp yàlla mën na ko dogal mu jaar ci loxo Touba ci kanam.